tey li waralu ndaje mi fii ci Touba bu sa soxna May Thiaw mooy attaque bi nga xamante ni ñu ngi koy waa kër Macky Sall ñu ngi koy def waa kër Bougane attaque boobu ci la ñu bëgg a wax ndax neexuñu ndax Bougane macha allah leader la boo xam ne dafa war a mën a politique ci dëkk bi sans problème ndax li fi Macky Sall am lool kese la fi am kon ñu bàyyi ko mu politique ci jàmm ak salaam gañe réew mi askan yëpp teg ci seen bët te kenn du ko faj kon waa kër Macky Sall nañ bàyyi attaque bi ñuy attaque waa kër Bougane nda ñoom tamit ay ndaw lañu comme ñoom doole lañu yor te ñooñu doole lañu yor te luñ ci bañu ñoom tamit ñun ko moo waraloon tey jii ñu woo leen fii pour ñu toog ñu waxtaan ci lu am solo attaque bi moom métti nañu ba fu métti yem te it na jëkk te na mujj c'est la première fois lu ci Macky Sall bañut bañuñu ko ci métti nañ parce que suñu leader la moom lañ am moom lañ gëm ah. kon duñu nangu kenn di ko attaqué ñun jigéenu Touba moom lu mu ci bañul ku lu ne ci bañuñu ko ci dinañu ko kalaame kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekk nekkal fi sëñ Touba dinañu leen ko wax ñu def ci seen i jéego yu rafet yu am solo ndax réew mi kenn moomu ko kenn toog dañ ko bàyyi woon mu politique campagne gañe réew mi na bàyyi moromam mu politique campagne gañe réew mënu ci dara te ñun jigéenu Touba bañuñu ci dara dañu yegg fa mbaxaana doone benn ak moom na arrêté li muy def Bougane parce que waru ko ko def ndax doomu Sénégal la comme moom kenn ku ne xam nga ku la mën da nga ko du nangu Bougane dafa mën Macky Sall te du ko nangu ak nun nag ñu ngi ci bañuñ ci dara fu buggaan taxaw ñu ngi fa taxaw kon nañ bàyyi buggaan mu ànd ak ñi muy liggéeyal ay ndawam liggéey ci Sénégal lu rafet ñëpp teg ci seen bët télé télé Sen TV bi ñuy tëj teguñu ko fen su fekkente ne ci wàllu gouvernement la kenn ku ne ci da nga am droit ci sa réew mi nga nekk ndax nit fi mu dëkk tekkee fi am fi alalam fi la ko mën a réinsérer fi la ko mën a defee kon Macky Sall dafa yàq yéeg buggaan te war na koo mën a wàcc bàyyi ko mu liggéey ak ñi mu àndal ndax macha allah jeune la ndaw la am na dooleem am na technique am na xelam am na alalam te jëlewu ko ci liggéey yéeneem doxal Sénégal ndax mu ngi faj ay askan woo xamante ni ci doomi Sénégal yi lañ juddoo Macky Sall waroon leen a faj te faju leen Bougane moo koy faj Bougane moom macha allah li li ko dar yàlla na ko yàlla may ndam 2024 bi ñu jëm buñ ko joxee carte yi mu jël réew mi ndax am nañ ci moom yaakaar te am nañ ci moom yéene te it moo bëgg askan wi askan wi bëgg ko